<laughs> voilà ñu ànd ak moom soxna na fi sa tujee ñu bàyyi la ak euh, Mbathio comme euh, tous les mardis ni ñu ko defee ak sa invité du jour. voilà euh, ma bàyyi la ngeen nuyu waa nii seetaan. Hmm? waaw asalaamaaleykum waa Walfadjri maa leen di nuyu leen sant di leen aussi ci invitation bi. Hmm. di leen nuyu yéen di leen wax ne leen dal leen jàmm. waaw Mbathio nga ñëwaat euh, ci facette bu bees ah, ñi nga xamante ni euh, je pense que yow nekkatoo ku nga xamante ni dañ lay présenter ci réew mi nga jot def ay exploits yu mag ca la nga xamante ni moom nga daan yëngu muy fecc mi mais dernièrement dañoo gis ni euh, vraiment da nga lancé wu dans dans une carrière musicale est-ce que mën nga ñëwaat tuuti ci nga nga nga nga choisir woy waaw Nafisatou loolu dara waral ko lu dul boo nekkee ci benn métier muy comme lu mel ni fecc xam nga fecc ak woy kenn mënu leen taaxale ba tax na ne man ànd naa pas mal d'artistes dem génn dëkk bi wala ma ànd ak ñoom ne di gis ñoom li ñuy def su fekkee sa xel day nekk ci ñoom li ñuy def fecc ak woy benn la kenn mënu leen départage dafa am tuuti différence boo xam ne rek tant nekkoo ci biir doo ko xam mais ba léegi ci biir aar la man nag maa choisir mhm. nekk mais dafa dafa amoon daf ci bari fecckat yi à l'ancienne leen daan laaj ci woy bi ñu naan la ñun duñu àdduna du yàgg ba ñu woy Eh, woy moom nañ ko bàyyi ñuy woy mais nii bu ngeen ko defee vraiment gis nañ la yow ci li nga xamante ni moom nga ñëw eh, gisoon nañ fi Oumou Sow ci woy gisoon nañ fi eh, Ndeye Gueye muy taasu est-ce que bu yàggee woykat yi duñ leen ko bàyyee ñoom itam te dem <laughs> non même pas xam nga ku nekk rek ak ni la yàlla fi mm. la yàlla wax ne foofu ngay jaar parce que nit dafa am euh, li ñuy wax euh, passion mm. mu nekk ci mu nekk ci yow te nit ki lu nekk ci àla kulli balaa ngay dee di nga ko def te ñun loolu dafa nekk ci ñun loolu la rek mais du dara ñun ak woykat yi ñoo far te léegi ñun ñëpp ñoo bokk xam nga aar daal kenn mënu ko taaxale muy théâtre bi di musique bi di nu mu mënti doon li ngeen di def ni lépp aar la ci biir aar la aar kenn mënu taaxale dara ñun ñëpp ñoo far mhm. Mhm. clip bi Mbathio nga woy euh, euh, coppati ah lan moo tax nga tuddee ko mu tuddee ko coppati déjà <laughs> coppati loo bëgg a wax ci coppati parce que coppati wolof bu ko déggee mooy euh, xëy na def ni pourquoi <laughs> voilà looloo coppati jaay ah suma jóg comme ni nga ko waxee rek mën ngaa coppati sax sa bañ a dugg fi nga toog noonu parce que coppati coppati daal nañ coppati lépp lépp loo gis nañ ko coppati nañ ñëpp coppati daal nu ko waaye jilee rek baax na mën nga coppati lu la neex Mhm. voilà Sidi est-ce que mën nga ma euh, may tuuti euh, encore ci euh, clip bi vraiment ñu gis ci ay innovation mu def clip bu rafet moom Mbathio waaye itam sañse ci sañse bu rëy ñu ci bari nag Mbathio jàpp nañ ni da ngay woy juste pour wane say sañse ñu ci bari nag ñu ci bari jàpp nañ ni parce que quand même ñun balaa ñuy invité nit dañuy laaj mhm. askan wi li nga xamante ni xëy na boo fi buñ toogoon à ma place loolu lañ la bëgg a laaj waaye ñu ci bari daal mhm. ñi jot a seet clip bi nee nañ sañse point <laughs> <laughs> waaw xam nga ku nekk ak sa xalaat ah ñun Sénégal lan nekk te dañu nekk réew bu nga xam ne ku nekk ak sa xalaat. Mhm. bàyyi naa leen ku nekk ak sa xalaat. Mhm. mais man xam naa ne man damay liggéey. Mhm. <laughs> waaw voilà nga nga ci woy mbëggeel woy ci pratiquement beaucoup de maa ngi dégg ci parole yi. ngay wax euh, euh, euh, àdduna dafa. jamono nu mu yàqoo te nit ñi woyu. justement lan ngay def référence parce que ñu ci bari itam jàpp nañ ni xëy na li nga jot a dund lu metti dans le milieu du showbiz loolu ngay ngay ngay nga xamante ne loolu nga dund dans ta waaw ba tey mën naa nekk parce que boo seetloo coppati li ma dund mu ngi ci biir keneen lu mu dund mu ngi ci biir coppati daal ku nekk mën nga ci gis sa bopp. Mm-hmm. parce que boo seetoo neena naa mbëggeel dafa yàgg te duré lool am na tey ay xale jigéen. muy man di keneen ak keneen ñu fi nekk ak seen copain 4 ans 5 ans mu xëy dem takk keneen wala kii nekk ak jëkkëram ñu def 10 ans mu xëy dem takk keneen xam nga loolu ci affaire mbëggeel la. Mm-hmm. ma la jamono nu mu yàqoote nit ñi wuyu. en une fraction de seconde. Mm-hmm. mën nañ jël tey Nafissatou sa photo fekk la sa benn xarit ngay def lu la neex maki yow sax ñu jël ko dugal ko ci eh, benn internet xam nga ñëpp gis ko ci benn fraction jamono bi moo yàqu. Mm-hmm. mën nga dox léegi ñu agressé la xoolal mm-hmm. jamono ji léegi ray bi nu mu baree ko ci ku ci ray ba pare soo waxee ñu ne la nit ki de pourtant amul problème. affaire bi man jaaxal ma. man li may wax nii société bi loolu la ñuy dund ñun sénégalais. dal na ma fi taxaw taxaw sama buntu kër dugg sama biir kër wàcc sama oto di dugg ñu agressé la. Hmm. jamono bi moo yàqu nit ñi wëyu hmm. doo xamante koy wóor doo xamante ku la bëgg doo xamante ku la bañ. Hmm. Sénégal daal fu mu nekk nii nañ delloo si xel yi. xam ne ñun Sénégal la ñu nekk. ñu yàq mënuñu xiiroo mënuñu ŋaayoo te ñun fi ñu nekk ñun milieu bi ñu nekk nii muy musique bi. paroles yi ñu def ah, léegi nit ñi dañ koy dégg yaa ngi ci musique bi Mbaathio. waaw léegi nga kon définitivement. transhumance parce que album baa bàyyi fecc bàyyi naa kenn dootu la gisati ci benn seen nga ci benn clip nga nga fecc wala ci benn seen nga fecc mais Mbathio est-ce que nekkoo di def risque aussi que quoi euh, qu'on puisse dire am xëy na euh, fecc moom moo ko ko may ah. maintenant musique bi nga xamante ni ñu ci bari jàpp nañ ne dafa euh, dafa dafa hmm. woykat yi sax ñu ngay génn di daw di jooy piraterie est-ce que boo bàyyiwee fecc rek jàpp ci musique gëm nga ni xëy na la la musique bi dina la may lu la fecc mi mayul woon waaw yàlla baax na xam nga loo gis rek danga ciy dem ak gëm-gëm. Mm-hmm. te man lépp lu may def rek dama ciy dem dama ciy dem ak gëm-gëm macha allah nit du catu boppam mais fecc bi tam bi ma ci nekkee marqué naa ci sama empreinte boo tudd boo tudd ñaari ñett te boole ma ci. Mm-hmm. kon loolu noonu ma woon ci fecc bi loolu naa fas yéene ñëw renforcer. parce que maa ngi ci biir te pour nga génn rek am label dafa yombul te man ko nekk xam na ne LSD Record muy def liggéeyu nice fii ci biir Sénégal ñoom ñooy sama label yaa ngi dégg ñu ciy jàpp. ñi nekk sama ginnaaw staff bu dëgër ñoo nekk sama ginnaaw macha allah kon man amul may tiit amul may ragal liggéey rek laa am pour def te maa ngi liggéey te incha allah ci kàttanu yàlla fu ma tegoon sama tànk ci raw laay teg sama tànk ci musique bi kon man gisuma risque ci loolu. Mhm. Euh, li ci am solo rek mooy liggéey te ñu ngi liggéey. ba mhm. mhm. ma la doon laaj ban genre musical ngay def xëy na euh, taasu nga may tontu. waaw maa ngi taasu mais album bi incha allah dina génn. dina am rap dina am wéy. album bi daal lépp loo ci xaar rek di ko ci gis. Bathio nag am na fit nag de seen bu ah. ah. Bathio nee na dina rab dina musique dina Bathio daal dafa fas yéene. maa bi yaa yaa nar a rab rab. a rab bi ànd ceeg ay rappeurs yu mag. def taasu bi ànd ceeg ay taasukat yi mag def wéy bi ànd ceeg ay wéykat yi mag man daal maa ngi ci lépp album bi daal xaar leen ko incha allah ci kàttanu yàlla dina génn. ci clip bi Mbathio comme ni ma la ko waxee tout à l'heure bari na ci vraiment clip yu nga xamante mm-hmm. dañ koy gis mu yegsee ci euh, taasu ko gis mu demoon dëkku euh, mm-hmm. xaw ma. Euh, sàmb gi laa jéegi moom. Mm-hmm. voilà ñu gis keneen itam ku dugg ci taasu def ni moom peut-être ay njole et cetera mais yow da nga ñëw def sa ay ay ay ay mini yu baax def sa ay nga bu dem sax ba def peignoir loolu mooy euh, wax ji jeex na lan moo waral vraiment nga euh, décide nga préféré modernité bi par rapport euh, au traditionnel. waaw Nafissatou comme li nga ko waxee rek man xale laa damay def yëfi xale. ba mhm. xale mu dangay def yëfi xale. ba tax na clip bi bi ñu koy def dañu def morceau ba pare bi ñu ko demee dem jox ko sama frère sama xarit papis mhm. mu jàpp ci moom tamit génne ay tenues yu nga xam ne macha allah. ñu jox ko xaadim kase bi ñu ko joxee xaadim kase mu nekk styliste bu mag ñaw ci lu rafet maa mm-hmm. ngi dégg ma koy remercier de passage moom Papis Niang art management tenue yi moo ko tànn clip bi daal lépp moo ci gis rek moom idéem la du dëgg mm-hmm. euh, ñu def bus bi bus bi ñu ko defee dañ bëggoon innovation parce que tout le temps dañuy gis même kili bi la ñuy gis fii Sénégal moom nag mu wax ne pourquoi pas ñun ñu dem xool feneen génne leneen lu bees yaa ngi dégg ma ci remercier waale Mané Diagne bus moom wax dëgg yàlla ci idéem la jógee su ma toogee fii faa ma wax ci remercier Sophie Diop moo ci jàpp bu baax a baax ku ci mel ni sama góor Medoune Diouf yaa ngi dégg Anta su ma limee juum staff bi nekk sama ginnaaw ñoom dañu bari ñëpp dañ ci jàpp clip bi ku ci nekk rek xalaatam mu ngi ci biir mhm. ba tey ñu génne ko tey euh, mu nekk lu nice ñëpp bëgg ñëpp di ma woo partout di ma félicité mhm. ma ciy kontaan di leen delloo ñoom njukkal bi mhm. di leen remercier bu baax a baax d'accord clip bi itam certainement dina lool ay jaloux surtout yéen ñi nga xamante ni Euh, euh, à chaque fois dañuy dégg ñu naan euh, jàpp ji leen ñii police ñi la tribunal yan appréciation xëy na lool laa lay la sa ay compère maanaam ñi nga xamante ni xëy na ñoom nga bokkaloon li ngeen di liggéey def par rapport ak lii nga xamante ni moom nga présenté ku ci mel ni Oumou Sow par exemple moom mi la jiitu xëy na ci taasu bi ñoom Ndeye ñoom Ndiolé et cetera est-ce que bi ngay mëbët lii jot nga dégg moom rek ci dans guise de dolli xalaat wala wala dolli xel waaw ñoom ñëpp samay mag lañ. Mm-hmm. samay xarit lañ te bii man maay seen caat. Mm-hmm. morceau bi bi mu waaj a génne biir studio dama leen woo ñu def séance d'écoute. séance d'écoute ñoom ñëpp. xam naa war ngeen ko seetaan ci internet bi ñoom ñëpp laa woo ñu ñëw te bi ñu ñëwee ñoom ñëpp vraiment ku ci lu morceau bi rek da nga apprécier. Mm-hmm. ba ba nga demaatee sa kër da nga yëkkat sa téléphone woo ma. d'ailleurs ci la fa njole dajee ak Ngoné Ndiaye ñu juboo pour te dire que musique bi ñun dañuy musique dafa war di boole parce que ñun ñëpp suñu xol yi boo ko ubbee tey dara nekku ci. Mm-hmm. bi ñoom dañoo baax ñoom ñëpp ma woo même clip bi bu mu génnee ñoom ñëpp ku ci nekk yëkkati nga sa téléphone. aw ma ak benn problème samay sœur lañ samay mag lañ te maa leen fi laa mm-hmm. kon damay mën a topp seen ginnaaw rek. Mm-hmm. ñu nekk ci jàmm. waaw léegi amatu leen benn problème. non non <laughs> mosuñu am problème mosuñu am problème. d' accord maintenant euh, Mbathio. Euh, lan nga fas yéene def xëy na pour promotion bi nga xamante ni moom moo di euh, album bi. su génne wala clip bi bu weesoo euh, euh, euh, clip bi nga xamante ni moom nga def single bi est-ce que nga xëy na def yeneen i yëf yu nga xamante ni dina gën a vulgariser lii nga xamante ni moom ci lii nga nekk sax lay wax. waaw waaw waaw incha allah ci kàttanu yàlla xam naa buñ ci àggee rek bu album bi di waaj a génn incha allah dinañ ñëwaat fii toog wala bu génnee sax dinañ ñëwaat toog pour wax ndax. toq toq gën yu rëy te bu ñu xamee foo jëm doo egg. je mhm. préfère loolu garder ko. Mhm. ba le moment venu. Mhm. ñu wax ci incha allah. d' accord ba tey amagoo jëkkër itam mbaaco te maa ngi naan ci woy bi <laughs> eh, xaw ma lan damaa ba def reetaan bu sew ci eh, loolu itam ci coppati la bokk. Eh, dangaa rafet macha allah bu <laughs> di ko woy lan moo tax amagoo jëkkër mbaaco. day dàqaaj. lu jot yomb. da ngay daaxaate. non pas daaxaate sax lu jot yomb yàlla baax na. wala ngay comme xam nga euh, tamit. Euh, <laughs> ndeysaan problème bi mooy. dañuy casting niveau bi ñu nekk ni casting bee fort xam nga. ki di mieux ñuy seet. ñaaru mhm. homme yooyu noonu xam nga. xam naa loolu la rek maa ca fekkee ñu ngi lay dégg bu fekkee mën nañu. même pas lu jot yomb lu jot yomb yàlla baax na. yàlla ñu bëri xaalis ñooñu moo tax instant bi ni nga taxaw di. non billaahi lu jot yomb ku sa timis jot rek nga dem. Mm-hmm. billaahi lu jot yomb. mbaaco nag xam nga day dañuy faral di ko dégg nag ak ay ay ay ay kii ay naka la ñuy wax grosse pointure la tubaab di wax ah vraiment li ñuy faral di la dégg ak ay grosse pointure ndax man euh, déggoon naa fi euh, mbaaco am na ku koy bëgg ba ñaan si ko sax ku nga xamante ni euh, daal na ci réew mi yéen a ngi ci yéen a ngi ci ba tey waaw ah, man yëguma li ngay wax. dañu <laughs> nangoo yëg. <laughs> yëguma ko ah. daal jàpp leen ni borom doolee ko yor. ndeysaan eh, nag nag li naa ko. borom doole non na ngeen gaaw finaliser xadi. parce que dafa dafa am benn temps boo xamante ne da nga dem extérieur toog noppalu jéem a sori rumeur yeeg peut-être sori. sonal bi nga jàpp que journaliste yi dañu la ko sanal ñu jékki-jékki nga ñëw ak euh, ak li nga xamante ne mooy euh, décision bi daal di dugg ci euh, musique bi ndax da ko defoon genre marketing décidé que da ngay dem ba nit ci xaw la fàtte nga ñëw ak ak single bi ngay indi pour que mu gën a def buzz ak sama dernière question moo di dañuy wax souvent ko way bu diglewul amul amul amul sens est-ce que yaa ngi xalaat ci di euh, gën a xuus ci thème yoo xamante ne laal na société bi ak lépp lu peut-être loo xamante ne dina am njëriñ pour sénégalais yi bañ a def comme yenn waykat yi euh, di euh, Samba Mbayaan wala maa ngi gërëm dëgg la dëgg la ma chérie comme ni nga ko waxee wala reculer pour mieux la woon di fecci bi may fecci naan ci wax dem bëgg a bàyyi loolu dem ci leneen kon il faut delluwaat ginnaaw loolu rek moo taxoon ma nekk te xam naa dangeen ma namoon rek waaye Europe bi yàggul est-ce que def ma fa un mois et demi chaque jour ñu laaj ma ko mais loolu yàggul. yàggul ma def ma fa sax un mois bu fekkee mën na un mois tamit bariwul intention ñibbisiwaat. Mhm, surtout loolu moo taxoon que. waaw loolu mooy samay mbir àndut ak wax daal bëggoon naa def mais bëggoon naa tamit mu nekk surprise ci ñëpp. te loolu li mu bëggoon loolu moo nekk bi mu génnee surprise la doon ci ñëpp parce que ma taxaw di foyee sax micro wala ma taxaw sax di wéy loolu laa bëggoon mooy reculer pour mieux sauter comme ni ma la ko waxee rek loolu la te li ngay wax woy bu woy bu yeetewul nu ko waxee léegi bu diglewul dafay yeete woy bi parole li ngi ci dégg comme ni ko Nafi waxee sànq parole yëpp day yeete li ma fi wax lépp société bi ñoo koy dund te ñu ngi prévoir yeneen morceau yoo xam ne incha allah yëpp societé bi lay laal dara du ci génn loo xam ne laalu société bi morceau yi ku ko dégg daal di nga ci gis sa bopp. d'accord man ci texte yooyu nga nekk sax fa bëgg. Mhm. Euh, ñu ñu des fi parce que d'habitude dangay gis ay nit yu nga xamante ne dañ leen di bindal seen ay texte leen rek lañ ci am peut-être mooy ñëw toog utiliser seen voix pour way yow sa ay texte Mbathio yaa koy bindal sa bopp wala da ngay demander ay nit yu lay bindal pour ñëw tegu ci kaw. xam nga Sénégal la ñu nekk ñun dañu xam jàmm santé kafre euh, Sophie Diop tey mën na ma bindal. sama xarit bi nekk ci biir kër gi mën na ma bindal sama ñi nga xam ne ñoom laay liggéeyal mën nañ ma bindal parce que lañu yor kon label amul kii moo lay bindal kii ñun ñëpp dañuy boole jox suñu xalaat mu nekk benn liggéey mhm. voilà c'est-à-dire parole yu bari yu ma ci wax Laye Diagne moo ko bind parole yu bari yu ma ci wax keneen ak keneen moo ko bind kon donc mi fii Michael Jackson sax dañ ko daan bindal mais li am solo mooy suñu la ko bindalee ba jox la ko nga met ko en valeur génnee nit ñi xam ne kii kat liñ ko jox sàmm na ko. Mhm. alors Mbathio lan nga compte def vraiment pour convaincre nag ñi nga xamante ni xëy na ñoom ñoo fi nekk naan euh, Mbathio daf ñu yëpp Mbathio ku ko bàyyi mu woy moo yow gis nga clip bu Mbathio moom de à part sañ sa defu ci leneen euh, Mbathio nii baax parce na quand même euh, ay salive yu nga xamante ni naka la ko tubaab bi di waxee Ndiaye ça fait couler beaucoup de salive li nga xamante ni moom mooy sa carrière musicale ndax ku ne mu ngi naan Mbathio lii Mbathio laa Mbathio léeg-léeg xam nga Mbathio saa yu di créer buzz boppam loolu moom suñu suñu borom def daf daf daf cee daf cee raw ndax ñu ci baree ngi naan mbaaco day woy mbaaco lii mbaaco laa est-ce que euh, am nga xëy na looy tontu ñooñu wala euh, di nga fas yéene xëy na euh, prouver leen ne li ñuy wax le contraire par le biais de tes de ton album. na fi man daal fu nekk nii tontu moom lu may mën. Hmm. xam nga lu ma mën liggéey rek nit ñi gis. Hmm. ñun nag ñun ñëpp ku ci nekk ak sa xalaat. Hmm. kër boo dugg rek am na nit ku ci nekk lu muy xalaatee mën ngeen bokk ndey ak baay bokk benn lal ku ci nekk boo xëyee sa jikko ngay yóbbu. Mhm. naa liggéey rek nit ñi gis mais tontu moom. Mhm. ngeen baal ma ko rek. <laughs> d' accord alors <laughs> lan ngay bu ngeen amatul question xëy na seen bu. album bi xanaa buñ ci mënee wax rek. Mhm. titre yeeg ak yooyu. album bi je préfère garder. ah doon ci wax dara. Ah, lay génn kañ lay génn nombre de titres yi mun date exactement bu ñu mu génn mais prévoir nañ ko au mois de février su mënul nekk tamit. mois bi ci topp su mënul nekk mois bi ci topp heure bu ko yàlla dogalee rek mais ñun suñu bébét mooy mu génn ci mois de mais dina ay duo xëy na ak euh, graaw euh, sax yu mag ñu nga xam ne ñu ngi évolué fii ci Sénégal ay mm. sama ay yaay sama ay mag sama ay frère dinaa ci def jiw ak dèjà ñu su ma jógee fii ak studio laay dellu. Mhm. ñu ngi liggéey liggéey bu garaaw boo xam ne bu ngi génnee incha allah Sénégal gi dinañ kontaan àdduna dinañ kontaan. d' accord kon li ñu mën a jàpp daal mooy en gros Seynabou mooy euh, Mbathio tourné na la page définitivement à la danse fas yéene lancé waxee na ci li nga xamante ni moom moo di carrière euh, musicale am euh, annoncé ci nag benn annoncé ko sax laay wax single boobu la muy woowee coppati sañ sa ca loolu nag point Mbathio. ma bàyyi la nga euh, xëy na euh, tàggu ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan wala bu fekkente ne am na loo bëggoon wax te laajuma la ko itam. Mm. nga nga nga wax ñu ko. waaw d'accord maa ngi leen di gërëm ci invitation bi. Mm-hmm. di remercier waa Sénégal di leen tàllalaat sama loxo ñu ñaanal ma di leen wax ne la man mënuma dara xamuma dara mais nag Sénégal laa dëkk fi laa juddoo fi laa yaroo di nuyu waa Koungheul bu baax a baax di nuyu sama ñoom yaay sama tante yi di nuyu sama waa waa euh, waa Kër Malle maa ngi leen di nuyu baax a baax a baax di nuyu sama waa koñ waa cité Damel bi nga xam ne fa laa dëkk ñu bëgg ma trop bu buñ ma gisul dañu ñëw ba sama kër di ma laajte. Mm-hmm. di remercier Sophie Diop comme ni ma ko waxee woon sànq jàpp na ci. di remercier mm-hmm. Fatou Sané esprit chic moo defar make up bi. Mm-hmm. defar sonn ci clip bi trop même bu nekkul clip bi dafa sonn ci man Fatou. c'est une sœur remercier Anta Soda Diallo. di remercier Laye Diagne moom mhm. remerciement spécial mhm. LSD Record parce que gëm nit ki moo yomb mhm. Sénégal comme ni ko waxee bëri na ay talent bëri ay woykat mais amuñu producteur producteur boobu nag ñuy xëccu man am naa ko kon maa ngi koy sant yàlla euh, di ko sante samay ñaari waajur di ko ko gërëmee moom Laye Diagne mi nga xam ne moom moom a gëm di ko gërëm ak madamam madame Mané moom tamit jàpp na ci bu baax a baax da ciy sonn su ma waree dem télé sax day stressé wu su ma ko tàggoo ne ko maa ngi dem fenn sax dafay stressé di gërëm sama góor Medoune Diouf di gërëm ma copine d'amour ah. tuuti mm-hmm. ma dem Diaw. di leen remercier bu baax a baax naa enregistré nga nga gërëm ñi nga bëgg a gërëm ñëpp. bu <laughs> neexee mais tey damay remercier di <laughs> remercier nag Kamala waa jooju meuble ah, ma dem Fall. di remercier Henri bu baax a baax remercier lañ tourné clip bi. Mhm. remercier naa ñëpp daal sant naa ñëpp. ku ma tudd tamit nga xam ne dama. Mhm. dama kii waaw dama ah. fàtte waaw. voilà voilà bu setee Mbathio Ndiaye euh, ñu koy remercier bu baax ci disponibilité mu ñëw nag euh, wax ci la nga xamante ni moom mooy def buzz jamono ji di clipam boobu mu sañse ci ay sañse yu rafet waaye itam comme niñ koy faxal di nemmee nemmeekoo euh, taasu moom à chaque fois ay leçons de morale lay faral di làq ci biir moom itam mu joxe ci ay leçons de morale yu yu xëy na xaarandi album boobu nga xamante ni moom la doon wax léegi ba tey nag waxuñu album bi nu muy tudd mais on espère que dinañ ci am ay leeral fii ak 2017 voilà bu man la woon di remercier Sophie ci euh, coordina coordination bi. Mm. Euh, Sophie Sophie merci Sophie a ngi joxe jaaxal jaaro Sophie ngi wuy téléphone. Sophie ngi <laughs> Sophie ngi yàqal Sidi Sophie ngi ci lépp. <laughs> mais euh, mooy loolu Seynabou en tout cas j'étais très ravie de de partager. léegi je souhaite un très joyeux anniversaire à ma maman euh, madame Ndiaye maman yaayu bu Ndiaye di ko ñaanal mu yàgg fi lool te weer dund ba fekkee nag njëriñu euh, fekkee mu ngi cay mu cay ñam sax waaye <laughs> waaw dund ba ñu yóbbu ko maaka noonu baax na ah. waaw incha allah